fii ci Màkka euh, jot naa xibaar yi nga xam ne ñoo jóge Sénégal ginaaw taw yu bare yu metti yi am fan yi te ñu ñàkk ci ñetti nit yu faatu parce que xale ñoo ci gën a bare benn ci Sadel ci Fuuta Sadel bokk ci commune bu Bokki Jawe benen bi nekk ci Cambérène ci Ndakaaru benen bi tam nekk ci Yëmbal Nord ci département bu Kër massa may tambali si di euh, jall suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ñàkk euh, mbokk di ñaan yàlla mu xare aljana ñi nga xam ñoo fi jógee di ko jaal réew mi yépp ndax xam ngeen ni jamono ji ci àdduna bi li ñuy wax dérèglement climatique dafa am maanaam taw yi ni muy ñëwee ak doole ji muy ñëwee euh, dafay indi yàqu-yàqu yu bare bare d'ailleurs waa météo waxoon nañu ko ne woon nañu ci booru njeexitalu mois d'août ak début septembre taw yi gën a rëy yaakaar nañ ne ci jamono jooju la moo waral d'ailleurs ñu joxe woon ndigal ministre de l'intérieur ministre ak ministre bi yoon ndox mi di def situation journalière maanaam bés bu ne ñu joxe alerte yi bés bu ne ñu xool ak météo li war a xew surtout ñuy joxe recommandation bu taw yu mel noonu war a am nit ñi euh, mooy tëndeku tuuti waaye nag malheureusement yàlla def na euh, lii xew na kon damay jaale mbokk yi di jaale Sénégal yëpp euh, te di wax it ne ñun dinañu def kem kàttan pour di taxawu askan bi saa yu nekk yónnee naa d'ailleurs pour ñu dem ja yóbbu njaal moomule mais aussi ñu continuer surtout liggéey bi ñu tàmbali. ndax ndox mi bu ñëwee ak doole ci diir bu gàtt faaw mu déborder te loolu débordement yooyu léeg nag mooy indi soit miir yi bu fekkee dëgëruñu walla kër yi bu fekkee yàgg nañu walla am na noo xamante ne liggéey bi noonu lañ ko defee woon boo moytuwul dana indi gàllankoor mooy bâtiment yi daanu walla nga gis léeg tam yenn courant yi électrocuté nit ndax système bi amul trop trop sécurité waaw loolu yëpp nag dafa ñu war a indi. ñu gën a xoolaat suñu bopp xoolaat aussi dëkkuwaay yi euh, xam ngeen ne si assainissement ñu ngi ciy def lu lu ama am solo waaye du mën a jeex tant que saa yoo defee assainissement fenn nit ñi demaat foo xam ne kenn waru fa dëkk ñu defaat fa ay lotissement maanaam fu yoonu ndox nekk wala xuur nekk fa ñu def ko ay lotissement di ko jaay su ko defee at mu nekk encore dañu am problème bu ndox ñëwee rek problème lay am te jamono ji dañu tolloo ak jamono taw ci àdduna bi yëpp gis ngeen ni mu mel euh, loolu nag euh, waaw damay wu ñëpp waaye xam ne rek gouvernement bi mu ngi yokk taxawaay euh, plan Orsec bi mu ngi continuer di dem ci indi secours yi ñu war a indil nit ñi yëpp maanaam taxawu bi aussi continuer surtout suñu programme de lutte contre les inondations muy taxawaay yi ñu war a def ba tax na gox yu bëri gis nga bu njëkk boobu bu tawaan rek lu tuuti mu amoon problème waaye tey jii gox yooyu génn nañ ci waaye yeneen gox yu bees ñooy gën a ñooy ñëwaat loolu nag combat la boo xam ne bés bu ne dañ koy faral di def loolu daal laa bëggoon wax di di masawuwaat soonu askan wi réewum Sénégal yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen mbokk si si si tiis bu mel nii.